danoo jël signature bu Abdoulaye Wade daal di koy copier maanaam falsifier ko signature yi ma tegal bi ci kaw moom lan falsifier bi ci suuf mooy vrai signature bi nga xamante si ni moom la Abdoulaye Wade def Abdoulaye Wade ah président Amadou Ba lay jàppale ak waa PDS danoo falsifier affaire yi Karim bi mu dugal c'est foo Karim Wade juróomi at a ngi nii gisul papa barke Serigne Babacar si juróomi at tegul papa ci bët Ablaye Wade dalatu sax politique dafa màggata màggata màggat boo ko gisee da koy yërëm talul sax recevoir ay nit ngeen koy duulal vrai signature bu Ablaye Wade moom moo nekk ci suuf bii ma bi ci kaw moom la pa waa Pastef yi falsifié ñoom la àndal déedéet Ablaye Wade ak PDS gi yépp Amadou Ba la ñuy àndal PDS Ablaye Wade ñëpp président Amadou Ba la ni jàppale kenn jàppale wu fi jumay dañuy fen dañ koo falsifié ay duul la man maa leen ko wax vrai signature bi mi ngi nii ci suuf bi ci kaw la nu falsifié mën a duul bay bëgg a dee Ablaye Wade telul recevoir jumay telul recevoir Ousmane Sonko màggat na boo gisee da koy yërëm juróomi at a ngi Karim Wade tegu ko ba doomam muy fen bàyyi leen duul PDS ci ginnaaw Amadou Ba ciao. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Euh, Adamo ngi nii madame Dieng ñun nag amadu Ba la ñu àndal madame jëkkëram ku mu àndal lay àndal te moom Amadou Ba la àndal ndax xam na njariñ bi Amadou bëggal Sénégal ak avantage bi mu amal Sénégalais yi Amadou Ba li mu ko njëkk a nawee mooy Ousmane Sonko dafa génn kaso wax ay wax yu ñaaw teg ko ci deru Amadou Ba jumay ñëw wax ci deru Amadou Ba ñu laaj ko ci démb quartier général mu wax lu rafet ci ñoom wax lu rafet kaddu yu rafet ñu waxal lu ñaaw nga wax lu rafet. kooku dignité nit ku diñ moo koy am ak ku xam àdduna ba pare profilam dafa baax Diomaye palmarès am gis ngeen ko nee na 10 millions la ma a am ci xaalis kii bu ko tegalee 2 milliards wala 1 milliard day jaay réew mi ba pare profilam baaxul man waxuma ngeen ñëw yéen ñëpp voté Amadou Ba de mais Amadou Ba profil bu baax la ñoom Khalifa Sall profil bu baax la ah mais Diomaye du profil bu baax gars yi ah man awma dara contre Diomaye mais baaxul pour Sénégal Diomaye mënuñu koo tànn Ousmane Sonko sax profil bu baax la parce que Ousmane Sonko musuma wax ci moom ne ndax mun ta yor Sénégal wala du profil bu baax déedéet leneen laa doon wax ci moom mais du lii juma yi mun ta yor Sénégal du profil bu baax donc profil bu baax bi Amadou Ba la jël leen seeni carte Dominica ngeen voter Amadou Ba Amadou Ba rek maanaam. Se volete un paese migliore, domenica andate Ba. Mhm. Perché Amadou Ba cosa pensa di fare per il Sicuramente a diminuire le tasse, a far diventare un paese migliore. Ecco, Amadou Ba rek wasalaam. salaamaaleykum Sénégalais yi madame Dieng ngi nii di si caaw ngi nii ay soko kañ ngeen jabar ju mel nii <laughs> benn quoi daa timide de xale la dafa timide yow duwul